jot na le dirai naturellement. comment ça se fait que des fois booy wax dañ naan da ngay li ngay wax ni comprendre réew mi mhm. euh, souvent say analyse voilà peut-être que c'est en faveur de ki jiite réew mi jamono ji euh, lan la da nga am xëy na loo comprendre lu ñeneen ñu comprendre wul wala daf sa degré d'information moo la may nga amee posture bi nga amee wala lan la jusqu'ici sori nga armé waaye bu ñu lay déglu dafa mel ni ba léegi renseignement yaa ngi sa poche non dafa am loo xam ne déjà formation la. ok formation la donc da ngay am capacité tey boo jëlee comme li mu la wax l' environnement li mu contenir ak li nga xam ne moo ko wër muy la frontière ñett yi yëpp da leen di analyser boo defee seen croisement dafa may résultat yu mu lay jox. Hmm. par exemple bu ñuy dem si élection présidentielle boo defee croisement wu ñett yi celui qui va porter le Sénégal mën ko yóbbu dëgg-dëgg day tomber ci croisement bi. donc yii c' est des choses yoo xamante c' est compliqué donc mën nga ñëw ci niveau boo xamante ni quand tu am na ñoo xam ne dañu comprendre c' normal parce que comme li ma wax politique du pour ñëpp tey ñëpp am nañ Facebook ñëpp am nañ WhatsApp ñëpp am nañ réseaux sociaux ku ne ku mu neex nga dem télé mais état <laughs> c' est pas la portée de tout le monde man ba léegi waxu guma lu nit dindi amul len lu ma toog tele wala ma bind si lu nit dindi d' accord euh, diggante ak Idrissa gën euh, nañ déggante nag mais comme n' importe politique comme li ma wax politique du noonoo du kii nit ki ànd nga ak moom dem ngeen ba période bi jeex na. chacun mën nga comprendre silence am bi dañ ko gis dañ ko dégg. rumeur yi bëri na ci moom am nga ay nouvelle ñëpp ñi nga xam ne kañ nga ko mujjee gis. kañ nga mujjee déggante ñëpp ñi nga xam ne ils ont une hmm. loolu nga mën a wax. non depuis kañ ngeen mujjee déggante. Euh, avant may def déclaration que génn na. lu la génne avant un lu bu ñuy dem si élection. coalition bi dafa am objectif mais bu objectif boobu jeexee c'était la présidentielle coalition bi naturellement day tas mais xam nga sénégalais yi ni ñuy réfléchir chaque fois comme man dañ bëggoon ma ànd ak Ousmane Sonko ñu ci bëri ànduma ak moom moo tax dañ ma doon wax tout le temps Idrissa Seck sa Seck donc bi ma demee nag ba événement mars yi di ñëw bi ma doon bind naan le Sénégal est en danger ba ñu invité ma si benn plateau foofu laa waxee ne je suis sorti il fallait que ma marqué loolu officiellement. d' accord lan nga jàpp jeexee rek. lan nga jàpp ne fi ne nii alerte la boo bëgg a bàyyi réew mi ñu bàyyee ko xel ci ni nga koy gisee ni nga koy yëgee ni nga koy sentiree ak par rapport xëy na say dugg ak génn information yi am est ce que am nga lu loo loo loo jàpp ne xëy na jar na nga def appel. mooy passion yi ñu àndal passion yi buy gis nit ñi ñuy wax. da xam ne ñii waxee wuñ seen xel waxee pour réew mi mais ay passion la ñuy ba ci activiste ñëpp non activiste yi moom <laughs> ñooñu seen dañ leen tuddee activiste mais dafa am lu bëri loo xamante ni parce que ñoom boo ne activiste yow par rapport à ce que tu dis par rapport à ce que tu fais mais par rapport aussi à l'environnement bi nga xamante ni yow li ngay xeex environnement ba mu ma combattre réalité yooyu ñoom xamuñu ko moo tax man je suis de voir li leen di dal yëpp ba ci Guy Marius Sagna li ko mujjee dal. gis nga jàpp dafa am loo xam ne dafa juum benn prolongement la. Hmm. mais dafa am ay limites yu ñu respecté wu. le syndicalisme dafa am fu mu commencé am fu mu yem l' activisme am fu mu yem la politique am fu mu commencé am fu mu yem te ñii ñëpp politique du seen morom moo tax en un moment ils ont voulu se substituer aux hommes politiques comme état wu Sénégal dañu nekk si effritement wu homme politique. ñoo xamante ni occupé tuñu espace espace bi y' a des jeunes yoo ay rappeurs lañ woon wala je sais pas hmm. tous échoué amu si kenn koo xam mën nga ko citer ni domaine am def na fa lii ah oui koo xam mën nañ ko ràññee ba ci waa am nañ disque d'or wala ñu am leneen Simon Bisley Kane je sais lu war tax tey xëy na ñu am légitimité feneen man loolu laa jàpp moo tax tamit je respecte leur combat parce que bu fekkee ne jaral na kon ñoom ñuy wax leneen lu dul Sénégal jàpp nga ni seen engagement bi leneen la ci nekk parce que tamit nit ki mën na engagé wu de bonne foi. mais tout en n'ayant pas outillé pour son combat. ba ci Guy Marius Sagna bien boo ko xoolee jàpp nga ni idée. bien sûr voilà dafa am yoo xamante ni tu peux faire mais am na yoo xamante ni waroo fa egg man je suis un enfant de l' état moo tax ni may waxee ñu bëri suñu ma déggee dañuy yaakaar ne dama ànd ak Macky Sall wala kii non man état la àndal man formation boobu la am donc bu ñuy dem nee naa la bi ñuy demee ba événement mars yi ñu bëri dañ ma doon woo naan ma fan nga far ñu di non mais attends notre pays est dans une situation complexe bu mu demandé far nga far mooy li ma wax ñun ñi ngay géeg ñu wax dañoo far dafa far et là dañuy egg foo xam ne si histoire c' est dangereux pour la stabilité du pays Sénégal fii ak 2024 hmm. on doit tous prendre du recul est-ce que est-ce que est-ce que jàpp nga ni les chefs religieux am nañ ci rôle buñ ci war a jouer même bu fekkee gis nañ ñu mosuñu ñoo bàyyi saa yu tàngee rek dañuy taxaw mais chef religieux ñoom dama jàpp si sama xalaat bu gàtt jugee si seen rôle d'avant-gardiste mais ñi ñuy waxal ñoo dul dégg ñi ñuy waxal ñoo dul dégg parce que dafa am lu bëri luñ manqué. mooy mooy tey ki nga xam ne day jiite comme li ma la wax gis nga jiit yow si sa bopp da ngay am disposition yi nga xam ne ñi la topp ñëpp da nga leen di xamal danga nga leen di éduquer da nga leen di jàngal ba fu ñu taxaw ñoo xam ne ñii am na si lu ñu nekk. mooy l'école du parti daal bu ñu la déggee mooy dafa naax saa amatul nit mbaa am na ko. moo tax ñun defaguñu rassemblement defuñu dara. man ñi may contacter yëpp dama naa leen kaa leen ñu jàng parce que balaa ngay dugg si mbir da xam mbir mi lan la ba pare mais nit ki doo depuis quatre ans yaa ngi jàng ku man boo ma leaderu kenn te bu ma ngeen topp daal ñu jàng li ma xam ma partagé ko li ngeen xam ngeen yan module ngeen am euh, jeexale fa module nag yan module bëri na yoo xam ne jàpp nga ne xëy na solution fi ñu toll bon parce que ñun boo jëlee nit si boppam ñun doomu aadama lañ jël tas ko donc dafa am li nga li nga doon ki nga doon li nga bëgg ak li am donc li nga doon mooy wane ne nit ki ci boppam c'est la science bi nga xam ne mooy gën a complexe donc nit kooku noonu la ñuy jël tas ko ñëw ba ci ki nga doon parce que ki nga doon tey mooy lan mooy sa but sur terre yow Pape tey lan moo tax yàlla wàccale ci kaw suuf message boobu mi ngi ci yow mais bu buñ la éduquer ci sa bopp nag di nga xam message boobu fan la nekk donc di nga xam yow fan nga war a taxaw nan nga fay taxawee donc ñu ngi que fi nga ko toll nii aarif yi ñoo lay gën a dégg ci réew mi souvent liy dégg ngay tudd aarif bi gën a mag ci euh, ci àddina su ma ko mënee waxee noonu muy cheikhul islam nga tudd ci say ci say ci say kàddu mu mel ni si say mission yowoon mhm. am na fu mu la sauver mhm. mosoon naa la dégg nga koy nettali loolu waaw am nga ci anecdote boobu Soudan la woon dañ doon Soudan léegi bu ñuy déplacé wu si désert bi mhm. dafa am parti yoo xam ne rebelles yi ñoo fa nekk léegi dañuy jox des autorisations yoo xam ne bu ñëwee ba foofu dañuy boobu nag dañ ñëw ñu arrêté ñu donc bi ñu négocier ak ñoom ba sonn d'accord ñu léegi nag si la seen chef bi gis ne si suñu véhicule yi am na photo Baye Niass bu fa nekk après nag si la si la ñu laaj ñu ne ñun Sénégal lañ jógee fekk boobu xam n'a pas fait attention au drapeau après nag si la ne ñoom ay talibé Baye lañ finalement li ñëpp dafa mujjee yomb ba noonu lañ continuer suñu mission. Baye intégration africaine ñooñu li ñu li ñu réussir. ci diine ñun loolu lañ mënul réussir si politique. c'est-à-dire que ñooñu dañoo jël ay nit tàggat leen ci seen xamal leen ñoom ñooy kan parce que loolu moo jiitu lépp moo jiitu rassemblement yi moo jiitu adhésion yi moo jiitu objectif politique yi tant que li matul pour man boo engagé woo tamit ay nit ngay am rek mais yu xamul fu ñu jëm ak yow parenthèse boobu am na solo dañ koy may waa Kër Baye ndax xam naa ni foofu la ñuy <laughs> jeexale leneen li mooy euh, da ne woon état daf la topp. takk la fépp maa léegi ceen dagg na wala. waaw léegi nag bo am na loo xamante ni. bi ko defee ba ma toll benn niveau bi. Hmm. am na sortie bu ma def boo xamante ni bon. wane ne que waaw li ma doon def yëpp en réalité du lenn loo xam ne ay nit yu mal intentionné ñoo ci dugal hmm. man aussi aw ma ci woon intention bu bon maanaam dem nañ ba xam ni yow sa génn bi du dara ci ne voilà exactement c'était personnel décision personnelle la et que amul woon benn motivation léegi kon droit say ñoom carte nga ak mun nga génn réew mi dem fa la neex léegi lii <laughs> ñu ngi lay gërëm di bu baax capitaine <laughs> ñu bàyyi la nga def sa kàddu gu mujj waaw encore une fois c'est un honneur parce que nit boo nekkee ci réew nga nekk jeune ñu lay may opportunité ngay wax bul xool li ngay wax ki mu neex mm. bul xool aussi ki mu neexul parce que wax niveau la c'est donc ñi lay déglu ñi ngi lay dégg donc kii nga xamante ni souvent da lay critiquer parce que li ngay wax arrangé wul ki mu àndal loolu du problème mais ñi nga xamante ne tey ñi ngi topp Sénégal di topp ëllëgam ñooñu ñu ngi ñuy suivre ñun ñëpp te am na yaakaar ne li ñuy wax amal na njariñ am na solo capitaine Mamadou Dieye ñu ngi koy gërëm di ko sant may fàttali ne moom moo jiite mouvement euh, nit di ko xam te nañ ko bàyyi xel bu baax ndax man damay liir euh, tey damay bind euh, damay damay damay liir lépp lu muy bind tey damay déglu lépp loo xam te ne daf koy wax ndax am na solo ndax ku génnee saint koo xam daara jooju war nga mën a xam ni ni du fa génne noonu di wax rek ñu koy bàyyi noonu jàpp ni mbiru philosophie ak ya ca aju la am na solo gërëm nañ la sant nañu la waaye xam naa ne da ngay joxaat rendez-vous waa Sénégal set ndax am na liggéey boo xam te dama ci soxla ñu yegg ceeg yow boo xam te lépp dañu koy schématiser. incha allah ma bëggoon nga dikk ko waa Sénégal set ak ñi lay bàyyi xel ci 13 minutes de vérité. nañ ci dajawaat beneen jamono. Mm-hmm. Euh, ci émission boo xam daanaka mën nañu wax ni dina doon gulet. incha allah ci loo xam te ci ay schéma lay doon. Mhm. ci addina fi mu toll. Afrique Sénégal ak yu ci aju ñu ngi lay gërëm di sant gërëm.